taarixu doxalinu suñu institution yi ministre transport aérien ba woon def na bilangam ci bopp bi la ministère biñ ko dénk gannaaw bu secteur boobule di jànkonteel ak ay jafe-jafe rawatina ci wàllu mbasum Covid 19. politique bu yees lañ teg fi nga xam ne kat mooy aéroport régionaux yi ngir fexe daal mën a respecter normes internationaux yi de waaye tamit gën yaatal li nga xam ne mooy flotte aérienne bi ci compagnie Air Sénégal. ak académie internationale des métiers de l' aviation ak tamit daal di am lu tollook fukki roppalan ak juróom-ñaar waaye tamit tabax centre maintenance aéronautique fii ci Diamniadio bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu AIBD SA ba woon réalisation yi nga xam ne ni moom la amal daa bokk ci yoon bu Sénégal jël ngir plateforme aéroportière am doon bu gën a ràññeeku ci sous région bi. waaw coppite googu loolu am solo ci secteur bi nga xam ne mooy dem beeg dikk bi ci jaww ji waaye tamit lépp daal di sukkandiku ci plan Sénégal émergent bi nga xam ne tamit jaar la ko ci plateforme aéroportière bu Dakar bi nga xam ne mooy ëpp aérien bi gën a am solo ci sous région bi fii ak euh, diirub 2035 euh, waaye tamit ñu ngi teg ay projet yi nga xam ne yu am solo la. gannaaw buñ ko tàbbee ministre ci remaniement ministériel ba. ministre ba jiite léegi transport aérien. ak développement aéroportuaire di dogg ci yeggali liggéey bi. waaw di la ci euh, li nga xam ne kat tabb nañ ko yees euh, ngir ngeen ma fee wuutu waaye tamit euh, ci sa fonction yu bees yi dama bëgg rek ne daal di wérte wóor mooy expérience bi nga xam ne ñu ngi koy rafetlu ndax ci seen jaar-jaar ci nga xam ne mooy bopp ministère ba nga jóge ak li nga xam ne moom nga capitaliser ci wàllum xam-xam. ñu tàbb ka yees ministre de l'économie du plan et de la coopération Doudou Ka jox leen ngay Antoine Meng ngir mu yeggali liggéey